عشقن نساء يا ذلن أموال لن له من أجل البهاء والجمال سيني قريب يا خمي يين دي يجيب بور سنغال ينكو يك ويين دي يجيب تن بور أفريق ينكو يك يوي عندك يين كي سين يك يوي عندك يين تم كي تانك يين دي دوخ بور أم سوليشن pour l'Afrique, pour l'Afrique, pour l'Afrique, pour l'Afrique. fekk africain yaa ngi sàgganee seen bopp lu leen daal rek ñoo ko teg seen bopp waaye bés boo xamee ne àgg nañ ci dooleey dégg li ñu Cheikh Ibrahima wax ci piram ba Afrique aux Africains donc kenn du leen ko defaral ñoo koy defaral seen bopp ñoo koy taxawoo seen bopp te mu taxawoo boppam ñàkku ko ndax am na xam-xam africain yi am nañ xam-xam mais xam-xam bu kawe kawe bu àgg fu nekk ci dayoo am nañ am am seen suuf yi am na am nañ population surtout xale yi ñoo ci gën a bëri loolu yëpp ay moyen la yoo xam ne yàlla moo ko teg ci loxo africain yi pour ñu taxaw taxawaay yu mel nii man xalaatuma pour senegal kese kese mais damay xalaat pour Afrique parce que Cheikh Ibrahima daf maa wax ne Afrique aux Africains te senegal africain la Niger africain la barki dem yu may téléphoné di ma dañoo bëgg ma ma ñëw fa pour waxtaan ak nangam ak nangam ma ne leen waaw maa ngi xalaat incha allah su sama xalaat ñoree dina téléphoné ambassadeur bi wax ko ñu utal ma yoon ma ñëw donc Afrique noonu mu yëgee bopp noonu mu yëgee ne senegal am na rôle bu mu war a joué ci biir waaye du Sénégal politique kese kese waaye Sénégal diine itam bokk na ci parce que Afrique diine moo ko taxawal. diine moo ko yëkkati diine moo ko boole te diine la bokkee ci àddina bi parce que seetal bi ngay dugg jàkk ji mu ne la xoolal di fi gis aw sag di fi gis di di fi gis di te yëpp naka la sa maam yi xeexe ba seen réew ñu soppi ko lieu de pèlerinage te xam ngeen lu mu tekki te bu nga ñëwee gis ko bu ci kanam tuuti bu nga ñëwee da ngeen gis mbooleem àddina bi ñëw nañ fi alors donc àddina boobu yaakaar la ba ñëw war na am taxawaay boo xam ne bu bu la gisee lim la yaakaar dina ko am parce que loolu yëpp senegal da ko yàlla barkeele <coughs> Sénégal du c'est la première fois ngay xalaat pour sa morom africain yi ay say maam def nañ ko Cheikh Ibrahima def na ko Cheikh euh, euh, Tall Cheikh Omar Tall def na ko ndax xam ngeen wala ñu yëpp moo ko taxoon di wër Euh, Alaaji Abdoulaye Niass def na ko Cheikh Ibrahim moom kenn waxaale wu ko moom loolu ñu doon gént yëpp pour amal ko en Afrique moom amal na ko boole na leen yëpp ñu nekk benn te ne Nigéria googu sama doomam fa di sëy ndax doomu Alaaji Abdoulaye suma doom la su ma rakkan fa di sëy parce que maa moom ñoo bokk baay donc woon suñ kër la suñ kër la ñu fa may bokk du jeex du xaaj bon bu ñu gisee nga taxaw taxawaay boo dëgg dëgg taxawaay boo bu bu sell bii bu tedd bii. xalaat say bokk la xew te yaakaar nga ne Sénégal war na cee mën a am taxawaay bu delloo si jàmm foofu dëgg dëgg taxawaay la boo xam ne mu ci encouragé mu ngi ñaanal yàlla yàlla la ci yàlla ak ndimbal boo xam ne yaakaaroo yaakaaroo ko la koy bette ba nga mën a def euh, li nga bëgg a def yëpp ci euh, Niger waaye ci Afrique Afrique euh, gis nga bi ci ko ku teel a ak moom la ku teel a gëm ay idéalam la bi mu taxawee Addis Ababa ne bugguma jógee fii diggaan te gisuma ne Union africaine taxaw na na ko wax yàgg na ko liggéey 1963 donc man ni mu leen ko waxee xam-xam manqué wuñu ay dirigeant manqué wuñu ay référence manqué wuñu waaye France itam dafa am doole te dafa teg suñu loxo yëpp daf koo nangu nangu suñu xel yi nangu suñu xalaat yi nangu suñu yëpp ba lu bëri nangu nañ ko malgré nous parce que xam nañ ne du ñu xam nañ du ñu xam nañ ne ñoo moom suñu pétrole ñoo moom suñu essence ñoo moom suñu nangam ak nangam mais nag yan condition lañ ci jógee France mu ne nii ngeen koy jëlee jaaduwul jaaduwul te am nañu ko mën a bañ. su fekkee bañu ñu xew Niger léegi taxaw taxawaayu ay nit buñ paree foofu Sénégal dañ jëm si parce que doole bii koy yëngal ñuy def loolu doole bu nekk ci suuf la gisuñ ko ci kaw fii dañuy liggéey dañuy yëngal soldats yi fii ñu yëngal politiciens yi hmm? fii ñu liggéey sax quelquefois ak sëriñ yi ñu ngi joué te xam nga leen xam nga leen topp xew-xew yi di nga xam ne am na leneen nekk ci suuf yoo xam ne ñoo yëngal Afrique pour seen intérêt ñoom dinañ sàngoo l'islam dinañ sàngoo ay idéologie yoo xam ne ñu dépassé la bu ko ewaat ci biir ni ñi yëpp indi ay boo xam ne dafay tàkk suñ diggante ñun Sénégal ñu nanguwaat suñu alal di yóbbu rek ah, te bu yàggee tuuti ñu nanguwaat suñu doom yóbbuwaat leen comme ni ñu nangone bu ñëk hein way nak ben bo ñi ci ben lay commencé comme que ñu commencé ben ben yu mel nii di xalaté ni di xalaté lu war digënté Afrique africain ak moroomu africain ak lu war digënté africain ak ñu wara def ak ñu wara yëkëti ko ci ni vraiment ay ay ay leçon yu bess lañ hein ay ay gis-gis yu bess lañ te par force. da am ndam ci loolu parce que nit ñëpp sonn nañ ci bi passé sonn nañ même colonisateurs yi sonn nañ ci liñ doon coloniser nit ñi ah sonn ci yu bon yu def nit ñi sonn nañ bëgg nañ cee génn am na nouvelle génération bu ndaw bu leen di saaga am na benn waaye ci Angleterre mu bu ma woyee Londres ba ba ñibbi si suma kër damay rus parce que loolu yëpp dereti jàmbur moo ko defar li puukar yee yëpp dereti jàmbur moo ko defar mu ne mu ñëw damay rus ndax di fii li li njël ci africain yi def ko fii bu ñu ko delloo ñoom tamit ñu mel ñoom itamit ñu mel yal na yàlla dimbale seen ngi ci ànd yow ci suñu ñaar ñu ngi ci ànd yow suñu xol parce que suñu njabootam fa yoo xam ne njaboot direct la direct dëgg dem ambassadeur bi nekk fii. ne ma nangam ak nangam ak nangam mais comme que ambassadeur boo xam ne gouvernement am daanu na damaa xamul ndax mun naa ko wax yow yow nit ma la nga moo la déet <laughs> euh, waaye incha allah dinañ dimbalanteeg yow ci zahir dinañ dimbalanteeg yow ci baatin parce que ñu ngi jokkoo ak ñoom par téléphone ay personnalité yu fa dëkk ñu ngi jokkoo ak ñoom par téléphone ñu ngi leen di wax li ñuy war a def ci ay ñaan ak yooyu ngir yàlla dara yow ma te ñan ca ñaan lañ gën a am ñun yëngatu yéen a ko am hmm? am na benn politicien bu toog fii barke démb ma ne ko man dama la bëgg a laaj benn laaj fu ngeen jëmee senegal fu ngeen jëmee Sénégal parce que defe naa yi wër musiba yi wër di tasaaroo te ay bandi ëmbaleen ngi bëgg a dugg fu nekk te bu ngeen jóomee tuuti rek foofu ngeen ñuy tàmbal bu ngeen juumee tuuti rek di ngeen tàbbal Sénégal foofu te soxlawuñ ko dañoo soxla développement dañoo soxla suñu xale yi génération bu ndaw te ñoo gën a bëri ñu taxaw pour taxawu seen réew te bu ngeen leen ko jàngalee ñoo xam ko ndax lu ngeen leen jàngal parce que politique wu jamono bi gaaw leen étage ko bu mu amati. saaga xas weerante ŋaññante. ngeen du ko jàngal nouvelle génération baaxut bu ko def baaxut jàngal leen jàngal leen kawe jàngal leen góor ñi jàngal leen seen maam yi liñ def ci kawe ci mbaax ci yëkkatiku ci àddina bi yëpp xam leen te yëngal yëngal ak yaakaar nga leen xamee ñooñu ñooy seen maam ñooñu ñooy seen maam du du keneen te yooyu yëpp da ngeen ko war a boole ci seen biir. politique di fàttali Sénégal ne ko yow nit ku kawe nga ndawoo ndax li maami jàmbur yëpp def ba diine di xew sa def na ko pour diine def na ko pour alxuraan def na ko pour xam-xam def na ko pour samp jumaa def na ko pour jàngale eh, yëpp def nañ ko te réussir nañ ci ñu leen di gërëm ci ñëw bi yaakaar yi nga am mu yëkkati la animé ni yàlla bu ko yàlla tas ba nga am ci dara ngi ànd yow ci suñu ñaan ak suñu ndimbal bu yàlla dogalee ma dem Niger comme ñu koy bëggee incha allah bala maa dem naa la contacter wax la ne maa ngi dem incha allah yàlla baax ngi leen di gërëm di leen sant jazakumullahu xayran asalaamaaleykum wa الشقاد نساء أموال لن له من أجل البهاء والجمال